abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu mi ak ci bitim ahlan bikum assemblée nationale ni ki démb fa tàngoon jir diggante député ku jëga ak njiitu jëwrin yi Amadou Ba ak ministre am enquête yéen a kaay ñu ko xamal coow la nag fa gënoon a takarnaase jëm ci wàllu xëccoo suuf ba ca ngor filaawoo ya ak licence de pêche yi gp yéen a ne waaye assemblée la muy tàng-tàng démb Amadou Ba njiitu jëwrin yi tontu na ak njàmbaarte question actualité yu gouvernement bi léegi ko yéen na ko waaye bëri na fa ay yooxoo de wuu national nag yaaw seetal Biram sulay Diop ci député ku jégi la bokk fa faa dugg Amadou Ba ak i miliyaaram Amadou Ba fa koo tontu boole si jox koy leçon député ba ñuy wax Guy Marius Sagna xaw tuuti ko doon mu rey Antoine Diome jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi yaaw seetal fa ko wax ne xaw ma kan waaye yow jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew fii lañu fa rey ab xale ci ñaxtu yi nga ne paaka ak jaasi ñoo ko rey si ba génn na loolu du dëgg feta la ko rey ñu ñuy rey ci ay ñaxtu ba léegi amul enquête xamuñ fa ñaaw ba ci kanam yàlla Antoine Diome moom it fa tontu Guy Marius Sagna tontu yi saf sàpp yaaw seetal fa ko xamal na ko gis nga woote wàllu fitna wala jël ay ndaw naan leen dem leen ngeen xeex ak takk der yi xana loolu lu ko gën a ñaaw ñun nag li ñuy war mooy fexe ba kaaraange jàmm réew mi te ci loolu lañ nekk waaye ay ñaaw làmmiñ yi ñun taxu ñoo jóg vox populi ne Antoine Diome fa dugg démb ci assemblée nationale Ousmane Sonko xawtul mu ray ko naka noonu ak Guy Marius Sagna fa ñaawlu seen doxalin Sud Quotidien ne Amadou Ba moom démb fa doon dalal gaañi xamal leen ne février 2024 ay wote dana am Sénégal muy njiitum réew mi te képp koo xam ne conseil constitutionnel nee bokk bokk te yëfi fañ koy teg ci yoon ak ku mën a organiser élection yi nag yëfi fay jaar yoon l'observateur na laaj ak tontu ya xamoon assemblée leera ya fa jëwriñ ba def man ca biir yéene kaay ba <laughs> leer la neen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne njiit réew mi Macky Sall li tax mu bëgg a xamal dialogue ci wàllu politique bi mooy fa bëgg toxal wote 2024 yi toxal ko ba fii ak ñaari at waxuma ko Bougane Gueye Dany moo ko wax ci turbine yéene kaay regard yéene tribune yéen a kaay fa wax na ñun waa gëm sa bopp yi bés bi ñuy commencé dialogue bi ñun ci la tàmbali di séddale ñaari million carton rouge jox ko njiitaram Macky Sall ngir wan ko na ko daakoruñ ci ñetteelu mandat bi lu jëm ca atteb Hadji Sarr ba ak Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany fa wax na loolu gàcce la sax ci réewum Sénégal Serigne Saliou Gueye ba nekkoon seen TV te ñu teg ko loxo Bougane fa wax ne dara taxu ñu teg ko loxo lu may fay déranger dëgg ak yi ni mel direct news la mu gëm ñeneen ñu wax lañ gëm waaye yeewi askan dialogue njiit réew Macky Sall waaye yeewi askan wi neneen duñ fa dem bokkuñ te ña ngay xoo képp koo xam ne fa ngaa bokk biir yeewi askan wi nga bañ a dem boycotté vox populi ne Khalifa Sall nag ak i farandooram fa ñoo wax ne waaye yeewi askan wi seen réunion ba waxtaanee wuñ fa woon wàllu dialogue bi moo tax dogal yooyu ñuy wax fa ñoo jàpp ne taxawut fenn kon ñoom fa ñu continuer ca lañ nekkoon te mooy xaw yoonu dem bokk ca dialogue ba enquête yéene kaay mel ni ku naan Khalifa Sall ak ñim xàndal yéen tamit waaye yeew yi ñoom li bi loolu xam ne conférence des leaders jël na ko léegi kay Khalifa ak ñam xàndal fa ñuy wala ñu ñàkk caa d'accord su ko defee mooy na tasaaroo nañ leer la neen lu leer ba yeggaat ca nañ ja mooy ne PDS Ablaye Wade ak ki farandooram ñu ngay tëkku njiit réew Macky Sall na ko boo mooy tuut te sa dialogue boobu duñ ci bokk ñun waa PDS fa ñuy bañ ah, yow seetal PDS fa ñoo wax ne ñeenti fan moo des ñu tàmbali dialogue bi te ba fii ñuy wax ak yéen lañ war a waxtaanee tomb ya ak nañ koy waxtaanee ba léegi joxuñ leen ko te gisuñ ko fenn fa ñoo wax na daal lañ war a waxtaanee ak nañ koy waxtaanee daraa ci leerul ba léegi te ñoo xam ne ñu ngi ruumandaat di wax naan njiitu réew mi fa bëgg woote dialogue rek ngir randal élection yi kon nag bu yëf yi leerut waa PDS yi fa ñoo wax ne ñoom duñ bokk ca dialogue bof leer laneen lu leeraat ba yegg ca naan ja mooy ne sa Seck fa jéebaana njiitu réew Macky ca Amérique lu jëm ci ñetteelu mandat bi liberte ak démocratie bu Sénégal la sàkku ca tubaab ya ñu dugal ci seen loxo ndax fa mel ni yëf yi jaarul yoon info yéen kaay ñu ko xamal fa xam ab média bu ñu wax BNN fa wax ne Idrissa Seck fa jël ñaari américain yoo xam ne fa ñu xeex àq yelleefu doomu aadama ngir ñu dimbale ak artu ba Washington xam li xew Sénégal mën a dugal seen loxo ba tax ñu mën a àddu ci ñetteelu mandat bi ak problème yi nga xam ne opposant bi ñuy wax Ousmane sonk xam na ko ak yoon GP yéene kaay na ko voilà usmaan sonk moom ngay wax xam nga fa fee génn bërki démboo Njaay ne Adji Sarr daal fa mel ni dàngin golo yu mag yu ñaaw yooyu bu am AVC kon soxlawut ko waxuma laak di ko siif kàdd yi ni mel nag fa naqari Adji Sarr moom it fa génn tontu na Ousmane Sonko tontu yi saf sàpp ah, yow na ko la def li nga doon xamoon ne danaa la porter plainte léegi nag dootuma la may dara sooy wax rek ma génn tontu la gat sa baay mbay Baye Mbaye MC Niass sëriñu Adji Sarr bi mel ni kuy tontu Adji Sarr ca indépendant yéene kaay ndax fa ñaawlu doxalinam ba pare moom Baye Mbaye MC ma ngay tëkku ne boo mooy tuut am na fanweeri ojo yoo xam ne kenn déggagul ko te moom ma ngi ko yoree yu garaaw nag bu ñu deful ndànk fa koy génnee ci internet bi te audio yëpp fay wane ne Adji Sarr li muy wax ni dara du ci dëgg fay tuumalaate rek te benn firnde def nañ ma lii def nañ ma laa te yow joxe ba ca kanam tribunal sax joxe woo firnde express yéene kaay na ko si jamono jooju Sonko moom fa xooxay farandooram ñu dem Dakaaru ñàkkante ji Abdou Karim Fofana ne ñu ngi koy xaar Sonko li mu bëgg moo ñu jàpp ko ci wàllu politique ko mu xam lu lay waaye nañ ko bàyyi yoon rek wal fajiri yéen kaay ne ñàkk bokk ak Ousmane Sonko ci wata 2024 yi yoon ak la nekk ca kanam njiital Pastef yéen kaay ba nga koy leeral le soleil yéen kaay ne 45 ñoo xam Sénégal 200 internet ak rajo communautaire ak rajo commercial réew mi yéen kaay ne benn waay daal fa saaga ab attekat ba pare tëgg ko mbéj waaye na tëj ko fukki at léeg si ko yéen a kaay ne paa bi daal xam nga nu muy def ay jarbaatam ak i sët sëtaatam yu jigéen yu am ay ñaari at ak ñetti at ak yi ni mel moom ñooñu lay topp di leen làmbaatoo ko def def yu ma la mënta wax ginnaaw bu ñu ko jàppee ca kanam tribunal ba yaayu xale jigéen yi ñoo taxaw di nettali jëf ju ñaaw ji nga xam ne paa bi fa koy def xale yi ba àtteekat ba ak ña doon seetaan fañ doon jooy ndax yëf fa salte fa ñaaw fi mu toll nii fa xamatut sax sikk sàkka aaxiru zamaan ci lañ ne àdduna bi jeex na ba pare de ku yeboo préparé ayow ñaawteef jikko ju yàqu ju ne danga ko fi dégg